xam ngeen chambre de commerce élection moo fi dugal nit comme membre élection yooyu ñun participer nañ ci ba tey yàlla def xëy na amuñu ci ndam waaye yàgg nañu jël suñu xol def ci chambre de commerce japonais. ne dafa important comme Nico ko tubaab yi xamee dafa mettre en place depuis 1800 et quelques, et avant même la chambre de commerce de Gorée moo jiitu bu Dakar te bu Dakar rek 1888. huit nous quatre nous avons, la kon ñoom nous, xalaatoon nañu ñi euh, euh, euh, coloniser xamoon nañ ne. chambre de commerce dafa am solo booba temps ñu koy soxla pour di yóbbu gerte geeg di exporter di def yoo xam ne yi xam nañ ne ci la ñu waroon jaar pour am suñu économie mais loolu tey la gën a ñor ndax pauvreté bi tey jii la ëpp suñu dëkk donc chambre de commerce boobu tey jii bu ñuy dox ba après ay élection yu ay ay problème ak yu kenn xamul ñu tey appliquer texte boo xam ne euh, euh, décret moo leen ko may pour ñu élargir jël ay nit ñoo xam ne seen xam-xam màcc nañu indi leen

économie boo xamee ne bi rek déjà taxu ko woon a bari doole toog at fonctionné wul na mu war a fonctionné dina soxla ndimal tey looloo tax ñuy accélérer nii la pas bëgg ku nekk ca la nga nekk nga xam pandémie bi daaneeloon na da nga war a jógaat bu ku nekk jógee ca la nga nekkoon rek économie bi jógaat ñun noonu lañ ko gisee ñun ñi ñu fi indi ñii yëpp ci li ma ci xam ku ci nekk am nga spécialité bu la ñëpp xamee boo xam ne bii dañ cee war a sëgg fexe def en sorte que chambre de commerce am résultat yi nga xam ne Même la président de la république bëgg le président de la chambre de commerce bëgg la population itam di xaar ci ñun ba tax ñu représenter